jërëjëf Anna Thiaw gan gi Abdou Sané moom mooy coordonnateur euh, provisoire Pastef Ziguinchor euh, ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM tey actualité indiwaat la fi ndax àjjuma bi weesu dañu doon manifester ñoom waa Yewwi ci Ndakaaru ak ca Ziguinchor ngeen bokk ca ña amee woon euh, ñaxtu ba foofe ñu teg loxo ñu bari ci yéen ana tey ji lan mooy situation bi. li am ba am mooy lan on a enregistré en tout et pour tout personnes arrêtées ñoo nekk ci commissariat quatorze ñoo nekk ci section de recherche bu gendarmerie. Hmm. mais li ci gën a am intérêt mooy dafa am ay jeunes yoo xam ne ay mineurs lañu dañ leen boole ak ay mag boole ci am na procédure bi nu mu commencé te mal parti pour mineurs yi yàggul le 16 juin passé la ñu doon célébrer la journée de l'enfant africain loi Sénégal lu mu wax dafa leer mineur noo ko boole. ci kaso moom ak ay mag boo ko defee infraction la moom la waa gendarmerie ak police def deuxième élément le cas de Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna tey fu mu ne nii candidat la lu mu nekkee am na immunité parlementaire immunité parlementaire nekkul bu ñu la falee nga koy soog am na dès que tu es investi ñu valider sa liste am nga protection benn cas de flagrant délit rek moom la tax nga perte ko te bu fekkee cas de place clandestine la dina feeñ ci procès ci ci procès bu koy xaar bu fekkente ne leneen la aussi dina leer. lan ngeen joxti yéen. troisième élément. Hmm. beaucoup de personnes yi ñu arrêté ñu bëri ñu ñu arrêté bi ñu leen di enquête xaar ñu ba seen avocat yi teew donc loolu yëpp dafay ñëw indi ay nullité te am na loo xam ne sax am na nu muy demee on peut même créer des problèmes aux forces de défense yi nga xam ne fàtte nañu ni war nañu mën a respecter loi bi. kenn ku nekk ak sa liggéey mais liggéey bu nekk am na nu ñu ko tëralee donc au moment où nous parlons aujourd'hui ñu ngi xaar journée bu décisive bu tey lundi bi. Mhm. pour xam la suite à donner. ngeen jot ci kaaw Guy Marius Sagna da ngeen jàpp ne dañu ko bëgg a yóbbu euh, ci kanamu juge d'instruction bu ko defee xëy na mu am njeextal ci euh, législative bi hmm. moom la ñuy laam laam. la ñuy laam xam nga nguur bu fekkee dafa bëgg a régler compte du lay juger en flagrant délit parce que flagrant léegi boo defee instruction boobu mooy permettre juge bi mu def nu mu ko neexee mu jël la en or bu ko jugee en instruction c'est-à-dire que dans ce cas on n'a pas respecté son immunité parce condition moo mën a indi ñu violer sa immunité mooy lan cas de flagrant waaye moom falaguñ ko tam bay bay def ay levée immunité parlementaire kon. ah moom falaguñ ko bay mën a def levée immunité parlementaire. donc procédure bi noonu rek lay mën a jaar. Hmm. immunité parlementaire. dès l' instant où tu es investi ba ñu valider sa liste rek dugg na. léegi bu ñu ko doon yóbbu instruction yéen lu ngeen bëgg. fu ne nii man mii di wax ak yow am naa unité parlementaire parce que man mii di wax ak yow dañ ma investir sur la même liste avec Guy Marius mhm. au moment où nous parlons sur l'unité parlementaire daf ñu protéger sauf suñu defee un flagrant délit. te li woon keroog mhm. jotewul dara ak flagrant délit. léegi la ñu xalaat ni lu mu defoon keroog la. Mhm. alhamdulilah tey wala suba war nañ mais bu fekkee dañ ko bëgg a yóbbu instruction dans ce cas c' est pas le flagrant délit donc bu nekkulee flagrant délit ñoom ñoo def délit di arrêté koo xam ne am na immunité parlementaire moo tax ma ne la c' est plus complexe que cela ba léegi nit ñi commencé di xalaat ci loolu. d' accord sans oublier que xale yi ma la doon signifié loolu c' est très important ay mineurs kenn waru leen boole ak ay mag dans une même cellule ku ko def c' une mooy am. tous les jours résistance option judiciaire on a nos avocats sunu avocats yi ñooy ñooy dégager les stratégies à mettre en œuvre pour ñu mën a régler affaire boobu. ñi ñu jàpp ñëpp dañu doon manifester ak aussi est-ce que ci yéen lañu bokk. Hmm? ñu ñu jàpp ñëpp dañu doon manifester et ce que ay manif ay euh, membres Yewwi lañ ñoom ñëpp. bon ñu jàpp ñi ñu jàpp am am na ñoo xam ne. man mii di wax ak yow sax mënuma leen xam parce que la ay maliens la maliens yooyu dañuy jaay tàngana mooy ñi di jaay ñuy tàngana. Mm-hmm. comme timit ak heure yooyu mooy seen heure liggéey ñooñu foofu la ñu woon boole ci am na ñoo xam ne ay ouvrier la ñu dañu wàcc liggéey dañu wàcc liggéey ñu ñëw tombé ci affaire yi mu am koo xam ne kooku mooy ci ñu rey kooku ci atelier la newoon di liggéey bal bi fekk ko foofu. mais nekkul balle bu innocente dañ ko viser. Hmm. c'est parce que là aussi il faut relever une mais bu dee moom manifesté wul deful dara nan lañ koy viser. ci atelier la newoon ci atelier la newoon di daan doole. di liggéey di liggéey. di liggéey daf doon liggéey. mais lu tax ngeen ni dañ ko viser. ah. lu tax ngeen ni dañ ko visé bu dee manifesté wul kay. dañ mu ne woon. Hmm. jotewul dara ak chance ak théâtre des opérations. mënul nekk aussi bal bu bal bu rëcc bal bu dévié bal perdu comme on dit. bal perdu. Hmm. xam nga fii Casamance gars yi dañuy tey teylu di rey Casamance ba pare ñuy naan ay bal perdu Casamance laa gis foofu ñuy appliqué toujours ay bal réel lan nga jàpp lan nga jàpp ni moo ko waral. ah lan nga jàpp ni moo waral Casamance ñuy euh, utiliser bal réel. Macky Sall. bu mu commencé perte élection fii ngir saaxu mu mere Casamance yépp loolu moo indi képp ko jege boo buggee kontaan boo buggee mu fan la da ngay tasalee Casamance da ngay saaga Casamance ku saaga Casamance nga am promotion ku rey Casamance nga am promotion développé moom ci boppam il faut que tous les Casamance comme des ne tamit rébellion boobu justement moo waral xëy na ñuy ñuy ñuy euh, li à toute éventualité. yaakaar ne peut foofu situation bi mun a compliqué. du loolu hmm. dafa am loo xam ne moom la ñuy wax ci français détermination ak engagement. dafa hmm. nekk ci suñu deret. parce que suñu éducation ay bañkat ngeen daal. Hmm. suñu éducation rek c' est fondé sur l' endurance physique ak endurance morale. donc amul loo xam ne mën nañu jaaxal. ensuite nit ki bu fekkente ne da nga xalaat ni da nga nekk ci dëgg. doo mën a reculer ci quoi que ce soit da ngay am doole tous les jours loolu moo indi ñu am motivation ak détermination bi ngay gisoonu parce que dañu xam carrément ni ñun li ñuy def nii yëpp def ni ko pour suñu bopp. def ñu ko pour keneen mais lañ ko def pour la république et pour les générations à venir parce que république tey dafa toll foo xam ne bu ñu toogee nii seetaan Macky Sall dina ko toroxal pour kenn dootu koo xam ne te Sénégal fu mu jógee sori na trop Macky Sall tuuti na trop pour mun a retarder suñu démocratie wala mu bugg ko arrêté. Mhm. ñu des ci rébellion ba tey ndax euh, keroog procureur génn na wax ni teg nañu loxo ay rebelle ndakaaru ki ci gën a fës bokk ci euh, Kabiline Diatta Ousmane Kabiline Diatta est-ce que tegub loxo boobu ak li procureur wax yépp jàpp nga ni mën naa am njeextal bu safaanu bien sûr ci ci processus de paix bi yoonu jàmm ji. ñu Sénégal amuñu procureur lu ñu am mooy lam gis nga permanence euh, permanence mu mel noonu procureur moom mooy seen antenne décentralisée amuñu procureur. parce que lu ñu am mooy lan ay géwél la ñu am ñoo xam ne gëmuñu seen bopp gëmuñu nii àdduna am na lu muy doxee donc lépp loo xam ne moo war a mun a neex Macky Sall ils sont prêts à le faire tubaab loolu lay wax les courbettes ak courber l'échine jaral na leen lu nekk mais bu ñu neew le soleil se lève à l'est fexe nañu pour ne le soleil se à l'ouest dara lu dul pour mu neex Macky Sall donc procureur lu mu doon def lu mu keroog moom moo doon wàññee personnalité am parce que xale bu tuuti sax gune yi sax ñu ko doon reetaan dem na ba mu taxé le gars d'avoir tout fait et tout tout alors que loolu yëpp ñëpp xam nañu ni montage la donc finalement dafa ridicule à preuve wax ji mu sànn mi ngi ne teg donc nu mu nekk noonu procureur ak ku mu remplacé ku nekkoon foofu comme procureur ñooñu ne ñooñu dañu ridicule ridicule mais Sénégal léegi jot amatul. kon jàpp nga ne li amul dara lu mu mën a yàq ci jàmm ji ñuy wut foofu Casamance. ah man jàpp nga ne kon lii amul dara lu muy yàq si jàmm bi ñuy wut foofu Casamance. non pas du tout. Hmm. pas du tout c'est-à-dire que waa Casamance aussi du ñu tardé seen bopp. procureur mënu am waxu procureur war a am impact yi ñun. Hmm. parce que ñun en Casamance on se reproche absolument de rien. Casamance dafa nekk une très belle région boo xam ne elle a été délaissée loolu rek la. Hmm. léegi l'espoir commence à renaître parce que ñun ñëpp gëm nañu ni fii balaa 2024 dina am kenn koo xam ne bu ñëwee mooy Ousmane Sonko rupture totale mooy am changement profond mooy am ak projet bu bees mooy am ba nga xam ne wax ma Casamance. mais tout le Sénégal muy Fouta muy Casamance muy Thiès un peu partout dinañu rétablir l'espoir parce que dinañu def le vrai décollage structurel au plan économique mais nii nii nii nii nii Macky Sall dafa tëlee te bu ñu ko ko remplacer il veut s'accrocher à tout prix amul lu mu la trouver mhm. jël dëkk bi di koy français yi di ci accroché wu xalaatul peuple sénégalais moom la ñuy xalaat nu muy neexalee les puissances étrangères donc ban ensuite dafa am complexe vis-à-vis de Ousmane Sonko parce que dafa wóor carrément ni tey moom bu amoon jàkkaarloo avec Ousmane Sonko kooku daf koy noyyi parce que amul niveau boobu pour a tenir devant Ousmane Sonko léegi complexe boobu moom la nourrir une haine à Ousmane Sonko ba mu jaawalee te bu déggee ni yow Casamance ki dégg rek mu parce que am na nu ñu war a seetaat pour éviter di élire par accident façon président yu mel noonu parce que moom lu mu ñëwee noonu la quoi loolu moo indi phénomène rëccu di am aujourd'hui un peu partout ko voté woon yëpp ñu ngi yëpp di jooy pourquoi parce qu'il n'est pas la hauteur mënul te bëggul bañ. alors euh, euh, Guy Marius moo jiite seen list bi foofu ci département bi tey ñu teg ko loxo est-ce que am ngeen tiitaange pour boobu liste. tiitaange tiitaange te bokk ci bokk ci ci cosaan Casamance. Hmm. alal la fekkee nañu lu lu raw loolu xanaa moom dañ ko arrêté rek kenn koo xam ne dañ ko fetal rey ko c'est pas la première fois ñaata nit lañ fi rey rappelez-vous événement mars on avait ay trois quatre morts à Bignona cette ci encore ñu amaat ay morts donc bu fekkente ne tiit ñu devant la mort nga bëgg léegi simple ku ñu arrêté simplement ñun ñu tiit pas du tout pour pas ñu tiit parce que boo yoree dëgg da ngay sawar bu la wóoree ni tooñ la ki da ngay sawar bu la wëree ni li ngay xeex xeex la ko pour sa bopp xeex la pour xeex la pour intérêt personnel da ngay sawar mais mais bu fekkente ne léegi wóor na la ñu yaa tooñ ci ngay ragal donc ñun fu mu ne nii on est pour la cause tout à fait noble. Hmm. kenn ku nekk gëm na pour que histoire retenir ce tour heure jot na pour nga mën a jóg doo ci table bi ëllëg tey doom dinañu rafetlu ñu xam ni sama amoon naa fi maam bu am njëriñ. d' accord donc foofu ñu toll. alors liste liste donc dara boole ci Sané balaa man ngay waxat man maa ngi tudd Abdou Sané Sané laa sant. <laughs> d' accord ku xam luy Sané Sané ak ragal àndul. fu nga nekk Sané il faut nga am fit voilà. ci bi ma am nii. Uh-huh. moom laa bokkal ak waa Casamance yëpp. Ah. d' accord alors ñu wax ci liste nationale bi ngir ñu valider ko bokk na aussi ci xeex bi ngeen sumb yéen waa Yewwi Askan Wi au plan national mais est ce que jàpp nga ni loolu jaadu na ndax ñoom nangu nañu ca ndoxteel ne dañoo juum ci liste bi donc tey suñu wëlbati ko waatee di xeex si liste bi ba xeexal liste bi ba mu waral lii yépp est ce que loolu aussi yenu na maanaa ay laaj la yu askan wi di di laaj aussi nangu nangu bu ñu nangu ni ñun am na fu ñu juum hmm. moo indi aussi ñoom picc pour que justice am nangu ni moom aussi def deful lu mu war a def lan moo am ñoom dañuy sukkandiku ci benn affaire boo xam ne kenn xamul ci ban loi lañu sukkandiku dem di naan ñaar liste ñoo am liste titulaire ak liste suppléante pas du tout loolu amul tan ci code électoral code électoral benn liste lay reconnaître mooy liste nationale point léegi liste nationale boobu moo am ñaar partie une partie titulaire ak une partie suppléante pour nga am suppléant dafa fekk nga am mais fexe nañu ba ñoom ñu def beneen lecture boo xam ne ñoom dañu considéré ni ñaar liste yu utee la ba ñu naan léegi seen liste suppléant moo mën a dem non amul liste suppléant amul liste titulaire benn liste rek moo am ça s'appelle liste nationale point mais surtout que ñoom bu ñu ko appliqué dañu gis ni bu ñu ko appliqué dañuy menacer les intérêts de la liste concurrente Benno Bokk Yaakaar te comme ñoom ñëpp dama di yàlla moo nekk seen credo pour luy neex Macky Sall taxe nañu dal ba ñu inventé loo xam ne kenn mësu ko gis fenn ko dëkk ba ñuy léegi liste bi nii lañu koy defee dafay am titulaire ak suppléant yan seen titulaire yi duñ ci bokk parce que lu tax parce que titulaire yi foofu la Ousmane ko nekk. moo ko jiite Ousmane Sonko mooy yaakaaru nit ki nga xam ne moom la ñëpp yaakaar nga defee ne boo ko jàppee di nga am jàmm ci dëkk bi. tax yaakaar boobu mag yi créé en nous tax na ba Ousmane Sonko créé le même espoir léegi espoir boobu mu capté boobu la gars yi bëgg a toxati loolu moo indi jeunesse bi yëpp. Ziguinchor ne loolu fi am. waaw Ziguinchor wax nga barki dem fii sunu antenne ne yéen da ngeen di euh, wéy di résister naka ngeen nar a résister ngeen di manifester waat wala dafa am beneen euh, stratégie bu bees bu ngeen di teg. amul dañuy manifester waat ñu ngi ci manifestation heure bi may wax nii ak yow ñu ngi nii di manifester vendredi ñu ngi a manifester. manifester fan manifestation toujours manifestation encore. Ziguinchor manifestation jusqu'au bout. Ziguinchor donc tant que tant que tant que recordé suñu suñu liste. Hmm. tant que rétablir suñu liste titulaire nationale. ci manifestation la ñuy nekk ak jën ko pura. jamono yi may wax ak yow Ziguinchor yéen a ngi manifester. bu baax depuis le matin très tôt. Mm. côté gaa ngi manifester si yoon bu nekk li ñaan di dem côté Oussouye. waaw léegi keroog manifester ngeen ñu jàpp ñu bari. kon du ngeen arrêté daal. lan la ñuy arrêté lan la ñuy arrêté xam nga kañ la ñuy arrêté. Mm. jour bu gars yi nangu corriger liste bi. nangu liste titulaire bi dem. parce que lu ñu lu ñu war a comprendre mooy lan liste bi gars mooy pour tere Ousmane Sonko mu nekk candidat parce que Ousmane Sonko bu nekkee candidat day gagné cohabitation bu amee Ousmane Sonko day nekk président assemblée nationale loolu la Macky Sall mënul supporter. waaw mbaa bu yàggee dina amati ñu dina dina dina amati ñu manifester. mais mais mbaa bu yàggee dina amati ñu manifester keroog manifester ngeen ñu jàpp ñu bari Ndakaaru moom kenn waxatu ko nee nañu ñaar téeméer ak juróom fukk en plus de leader yi ñoom euh, Déthié Fall Mame Diarra Fam ak Ahmed Aïdara foofu tam bu ngeen continuer noonu ñuy jàpp di dugal rek bu yàggee mbaa di ngeen dina amati ñuy manifester. ma ne ñun lu ñu jàppagum ci ay nit fii 34 la. Mm. Afrique du Sud pour votre rappel jàppoon nañu plus de 100000 personnes ñun suñu population sax tolloon foofu parce que boo demee prison yaa ngi ci biir prison tey le problème mooy lan yow loo yaa ngi mar yaa ngi rappelé yaa ngi xiif xanaa boobu moo gën a grave que prison amoo benn liberté boo ne da ngay manifester ñu ne du du fii ana léegi lan moo la mën a téye pour que nga manifester boole ci ki nga xam ne moom nga yaakaar nii bu nekkee président sa coono dina jeex moom la ñu bëgg tere pour mu mën a jàll alors léegi mooy lan dem nga ba tës te dem ba du reculer mukk en avant rek en avant rek donc loolu moo nekk aujourd'hui fii Ziguinchor loolu moo nekk Dakar loolu moo nekk Thiès loolu moo nekk un peu partout au Sénégal et dans la diaspora jërëjëf Abdou Sané amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaay coordonnateur provisoire Pastef Ziguinchor merci Fatou maa ngi lay gërëm di lay renouveler encore une fois mes sentiments de profonde gratitude ak sama xaritoo avec la rajo Rewmi FM